Bonsoir ladies and gentlemen, je vous dis welcome, bienvenue dal leen jàmm dans votre émission Sénérap 7 sur Sénégal 7 yaa tey comme d'habitude xam nga dañ dalati fii ne nu ñu fi dalal keneen koo xam ne dañ ñëw ngeen naan kii kan la dañ fi dañ fi dalal ñëpp dañ doon ay ndaanaan ladies and gentlemen Khalil Godzilla from Akatsuki SN ngeen di am biir Sénérap 7 but sans plus tarder day nuyoo à sa manière benn freestyle la ñu may live on Sénérap 7 Khalil. yaa ma ne la waxal <coughs> yeah. Yo, yo. <coughs> Khalil live on Cenograph set. Yeah. Yeah. maa ngi fi. ay nee leen de maa ngi fi. ay maa ngi fi. sa rakk daa xew yi comme magazine. maa ngi fi. ay nee leen de maa ngi fi. baaw baaw. maa ngi su ma suul sa booy yi du ma bàyyi kenn noo ma entraînement bi dina gën a fees. coono réer na nga ne aatu feeña feete fii ne raay ni sa bësu dee teg la tànk si ko kor bi yaa bi su a ah. ma gis woo dobu piis ma koy teg si onde yi ba do përëm maa ngi jamaa or si biir teg sa gat bi nigga gën bi su may tiiree maa ngi topp ordre bes yi dama nat dama gis sa monde bi sama songe di nga song sa feebu piis classe moom mooy jënd sëf bi la nar a suul yàgg sa gaa yëpp si biir su ma génne yi planning ah. def dif ak beneen planète boo alien dugg ko ba keneen plané ma rey sa dëgate cër maa a leer ni nga digg ba cëg xam naa projet bu génnee carrière bu bëy na fi jaw naa reke cë waaw maa ngi fi ah. ne leen de maa ngi fi maa ngi fi ah. sa ngi ah. ay maa ngi fi ah. yow ay yow kii si foo ñun la foo yi foog sa gaay def lu leer bombu leen ñu forty five dañ leen dëm doo gis si comme que blind sa section chargé leen ak quelque xëy sa ay fësal ni waati beer dañoo dii ngeen koy def ni waati beer touche la peer doon la bég loo xeer nekk si yoon lépp yëng ni taatu jeeg maa ngi fi ah. ne leen de maa ngi fi maa ngi fi je rappelle ah. moo <laughs> maa ngi fi sa gaay ne maa fi maa ngi fi. dafa ah. doon bëri xew yi comme magasin. ladies and gentlemen moo ngi fi. ma meen xaleel mi ngi fi soo dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen xam nga puisque nuyoog na à sa manière ba day nuyoog internet Sénégal seet yi ba Khalil. yaa ngi fi but foog nga nuyoo gars yi. maa <laughs> ngi Sénégal 7. <laughs> avec mon mère Malick. salaamaaleykum mm-hmm. salaamaaleykum Malick. di nuyu di la ziar. Mm-hmm. di nuyu képp kuy seetaan Sénégal 7. Mm-hmm. Khalil la euh, Akatsuki SN. Khalil Khelmu Sell aka Baron. Uh-huh. aka Borom Parcelles. aka uh-huh. Borom Dakaru aka uh-huh. Borom Sénégal maa nekk. aka Godzilla. aka <laughs> nee naa gars yi Godzilla sama nekk ma denc nii xam bu gars yi rek. Godzilla xaj na ci nekk bro. waaw ah, sama Godzilla amoon ay dinosaures laa yor sama biir nekk de. Ah. <laughs> <laughs> so sans plus tarder dañ benn mm-hmm. vidéo boo xam ne mu mujjee génn doon sa mm-hmm. euh, actualité récente. ba suñ la gisee xam nga foog ñu waaw ne la Anwar Akatsuki. gaa ñu ngi fi SN. Akatsuki ñu ngi fi. waaw Sori mi ngi fi Talla mi ngi fi mm-hmm. Element mi fi. staff bi ñëpp a ngi fi. gaa ñu ngi fi ñu fan yi dañ leen def fan yi dafa mel ne yi dañ di rangé wu quoi ku si nekk da ngeen toll ci ku si nekk di génne ay affaire mm-hmm. solo parce fan yi pass gis nañ sori mm-hmm. gis la yow élément ñu ngi koy gis ci ay featuring mm-hmm. léegi ñu comprendre loolu mën nga leen expliquer instant bi ni Akatsuki si ban phase la toll non gars pose na mais poseul parce que yaa ngi gis sori mi ngi génne sori Akatsuki la moom Element Akatsuki la. tey mhm. Khalil Akatsuki la. Mhm. kon Akatsuki instant bii nii mi ngi ci mi ngi ci beneen phase. Mhm. yaa ngi gis gars génne ba léegi parce que jëm nañ benn projet ñu ngi woon ci communication bi. on a fait pas mal de concerts def nañ ay tournées et tout. ñu ngi ci communication projet ba léegi. mais teewul ne avant avant Akatsuki aussi nekk da nga nekkoon sa solo aussi. Eh, solo yi aussi gars yi koy déclenché waat rek yàqul dara comme daaw. parce que li ñu bëgg xam mooy est-ce que après nañ amaat Akatsuki parce que su ma juumul yéen pour un projet. waaw mhm. ah. la suite quoi. est-ce que dañuy amaat Akatsuki mais li gars yi amuñu Akatsuki nii. non mais maanaam boog su su ma nee am parce que vous mhm. étiez réunis pour un projet. la suite. Mhm. ndax ce sera Akatsuki wala. ak euh, aussi ndax Akatsuki travaille toujours avec euh, Universal Music. non dañ nekk Akatsuki ba léegi ah. Mhm. dañ nekk Akatsuki ba léegi parce que mhm. Akatsuki mooy continuité bi Akatsuki mooy commencement bi Akatsuki mooy nekk mooy nekk fin bi tamit. yeah right Akatsuki mooy nekk lépp. Mhm, donc famille la quoi. famille la du mës a dee. léegi par rapport ak job ak euh, yéen a ngi job toujours ak Universal ou bien. oui ñu ngi job parce que contrat bi contrat bi pour projet la woon. contrat distribution la woon kon ni ñu ko yàgg expliqué. pour pour pour euh, pour projet P Universal bi la woon. te ñu ngi en cours ba léegi. yeah right. léegi carrément ñi tëj. li nga xam ne moo di chapitre Akatsuki bi quoi parce que mënoo fi ñëw te duñ te duñ te duñ te duñ te duñ dugg ci yooyu parce que yaa ngi bokk Akatsuki donc soo ñëwee foog ñu waaw foog ñu foog ñu foog ñu wax ci loolu sow ñu gisoon euh, récemment ñu gis sa benn sortie mais sa sortie ñu gis euh, avant Godzilla nga génnoon benn teaser benn ci Baron 4 mm-hmm. waaw gars yi peut-être gars yi doon léegi man gars yi doon xaar Baron 4 yéegi saay gis teaser Godzilla ak vidéo Godzilla mën nañ mën nañ comprendre loolu ndax baronkat concept bi la doon tiis la doon la doon tiise mhm. ou bien benn affaire boo war a génn bi ndax mais génnagul parce que ñu gis ay baron 3 foofu laay waxee sax parce que avant baron 4 avant muy dugg ak dama nekkoon di def ay série de singles yoo xam ne mu ko doon génne. Mm-hmm. def naa baron 1 def baron 2. baron 3 après si mm-hmm. laa dugg ak Akatsuki. Mm-hmm. nekkoon di job benn projet. ñu concentré aussi loolu aussi ne damay concentré aussi lii ba pare. bu projet pare ak ma doo ko déclenché baron 4. ak ma ñëw ak baron 4. boo seetloo teaser bi genre baron 4 série de 3 singles la. waaw mooy amul baron 4 quoi la ñu def baron 5 baron 6 et tout on dañ koy clôturer ak baron 4 pour mën a jàll si beneen étape mm-hmm. moo tax ñu def boo seetloo am na benn teaser bu njëkk a lancé ngay gis ngay gis am na mm-hmm. Godzilla am na On My Way am na mm-hmm. ëpp mais moo nekk moo nekk first track bi ñu génnee bi ñu génnee ci euh, ci projet baron 4 bi ci baron 4 bi léegi Euh, donc ce qui veut dire que maanaam Baron 4 si boppam. Mhm. benn genre projet la boo xam ne. day day day tënk freestyle yi nga doon def. quoi bi foo day tënk single yi def yëpp. maanaam mhm. genre di instant di dañuy balaa balaa ñuy tëb yenn étape. parce que mhm. ñoo am dañoo bu ñuy suivre aussi. balaa ñuy tëb benn étape dañuy continuer li nga xam ne moom lañ commencé woon parce que mu ñu def baron deux baron trois projet yi ñuy déclenché su léegi jékki dem ci beneen étape fallait que ñu topp li xam ne moom lañ commencé woon ba gars xam ne am na lu ñu te et dafa war a am fin mm-hmm. balaa ñuy jàll si ci beneen étape mm-hmm. moo tax ñu commencé par Godzilla te boo seetloo aussi ba ci bi yaa ngi am ay affaire yooyu bind ne toute ah. histoire <laughs> waaw Mhm. ni ko ni ko sama gars yi comme sama gars yi ñoo ko bi waaw bi tamit xam nga xam nga lépp loo gis moom déggoo am na benn pas benn pas père may ma góone nee na en toute chose il faut la fin. waaw waaw lan mooy fin bi am solo. instant questionnement bi laay bàyyi gars ah, yi comme gars yi Godzilla. Mhm. gars yi ne waaw Godzilla nu mu demee nii. parce que mhm. on a fait dañoo def benn plan de com boo seetloo boo suivre dañoo def benn plan de com ci Godzilla. parce que après teaser Ballon 4 bi. dañoo génne benn teaser boo xam ne mooy lancé Baron 4 mooy mooy lancé Godzilla. boo seetaanee teaser bi c' différent ak ak comme ça ak ak ak bi. Mm-hmm. waaw ne carrément duñ def comme ñëpp li def. Mm-hmm. quoi parce que am na lu ñu gisoon ci vidéo doon am na ñu gisoon teaser doon xaar ci vidéo. waaw merci parce que ñëpp noonu la def quoi. en mm-hmm. tout le monde la def da jël vidéo bi nga dagg benn 30 secondes. nga nga dugal ko partage na gars yi teaser bi la xam nga. xaaral vidéo bi nga xool li gën a dóob. waaw li gën a dóob li gën a dóob si vidéo bi nga dag ko dugal compal ko gars yi pour gars yi attendre. mais on s'est dit que non non dañuy def mm-hmm. sama gars yi réunion ne dañuy def comme ça comme que marketing la. Mm-hmm. dañuy def comme ça marketing carrément quoi. parce que business la aussi quoi. Mm-hmm. artiste bi entreprise la. entreprise la fait gars yi réunion def marketing bi ne. pourquoi pas chercher beneen boo xam ne day indi beneen touche boo xam ne bokkut ak li nekk si vidéo bi. après par la xool gars yi ñu contacté bu tudd Yoro. Mm-hmm. boo xam ne moom aussi réalisateur la dafa aay. ñu ko lu ñu bëgg moom aussi benn benn comme benn scénario ne man lii laa gis boo ko defee dina nekk loo xam ne day day marqué. Mm-hmm. te aussi bi ñu ko defee aussi. gis nañ ci résultat parce que bi teaser bi génnee xam nga gars yi woote ah, waa li yàlla li yàlla li yàlla parce que je sais pas le ndax ndax le but recherché c'était de Mm-hmm. indi benn sentiment de terreur. non tiital gars yi parce que tur bi déjà balaa ñoo ñëw ci Godzilla sax man Godzilla dama bëgguma sax ñëw ci mais mm-hmm. Baron pourquoi Baron. Baron parce que je me suis dit toujours man avant ñu may wax sax ay monsieur Sall. Mm-hmm. déjà sama ci sama conseil yi ma nekkoon rek dama ne lépp lu may nekk si live yi damay nekk leader quoi je suis pas le numéro deux ñaanuma yàlla nekk numéro de suivre kenn si live bi. parce que nekk pour nga démarqué Mhm. foog nga nekk number one. que mhm. number one moo lay def li nga bëgg comme ça li nga bëgg si la vie il faut pour le faire mhm. ma ne ma si ma doon seetaan benn film quoi bu tudd Narcos. après waaw fa la ma inspiré ñu mais genre c'était pas suivre carrément concept boobu noonu mais. damay ne Ballon c'est un leader te leader boo mm-hmm. gis bañkat lay doon. leader boo gis day nekk koo xam ne day fayet. Mm-hmm. bëggul kenn ko yab. Mm-hmm. genre kenn di ko manquer de respect et tout. wala ku koy ku koy diriger. dina déglu ses proches. parce que boo xoolee j'ai un cercle xam ne sama gars nii nii. du ma kenn. du dem fenn sama gars la laay toog su ma génnee sama gars yi dem su ma demul sama gars yi si jóg. ma ne man sama étiquette. ça colle avec lii nii quoi gis naa sama bopp. parce que nit ki boo def nii def nii di mën ut ay branche bu yàggee nit ñi mën la considérer comme comme ça comme comme comme naafiq parce que da ngay dem di wax di fréquenter fréquenter fréquenter fréquenter te laaj fi la noonu mm-hmm. man man su ma ñëw si rab li may commencé baron laay doon man mm-hmm. maay nekk man maay ñëw nekk la baron gars yi naan ay kii ay nanga man baron laay tudd mm-hmm. amul kenn ku may jiite amul kenn te kenn respect mais koo manqué respect di ko gis di nga ko gis dafa leer après man sama gars yi sama entourage parce que am naa équipe am naa gang. Mm-hmm. am naa koñ. Mm-hmm. am naa site bu nekk sama ginnaaw surtout surtout nag loolu te loolu instant bi dafa doon benn business boo moo tax denc ci game bi. man bi ay site gars ci mën nañ mm-hmm. xam ne suivre nañ ma. mais jarul sax que dugg sa chaîne déjà. sa première vidéo nga fa gis ay affaires yoo xam ne dafay yàgg. <laughs> tey mooy ay mees yi boo duggee lañ doon yóbbu maanaam gang bi lañ doon yóbbu. wane ñun. am nañ quelque chose bu ñu représenté quoi te ñu ko nekk di togg nii si mm-hmm. temps gars dañ gis te ba léegi gars yi gisaguñu parce que pii ah, kon gars yi gisaguñ nii genre commencé góor nii sans bi nii échauffé woo sax nii nii dangu baron bi yi ba léegi génnagul ah mafia baron bi génnagul ba léegi ba léegi génnagul parce que mafia bi su génnee du yomb amul kenn ku ñuy jiite mm-hmm. te ñu numéro deux kenn surtout loolu mm-hmm. numéro un la ñuy la ñuy def allah léegi god lañ ñëw ci Godzilla mais Godzilla balaa maa ñëw ci ci biir son beeg yi nga def ci son bi sax damay mm. ñëw ci daa mel affaire bi may dégg ci sound bi te mm. bi ma ñëwee seen studio dama gis affaire boobu mm. xawma ba léegi comprendre guma lan la si dégg bii de business c'est pas bii de <laughs> ndax xaw ma lan la <laughs> la dugg naa dugg naa ci studio bi gis naa ñu bind si bii de business <laughs> waaw bii de label la boo xam ne sama frère sama copain Talla Biti bi moo ko moom mm-hmm. comme ni ñu travaillé des fois à Negro mm-hmm. comme ni ñu travaillé bii de business après dama am benn boo xam ne ko bëgg a yow laa si fil quoi. parce man feeling laay demee. Mm-hmm. kon ni may enregistré néegu rab enregistré man ko yow laa si fil pourquoi pas ma ñëw mu ne ma ñëwal. Mm-hmm. ma ñëw ñu travail affaire moo boo gisee début rek mu dal koy teel a daal di biir def na si aussi mm-hmm. da di ko mixé di ko mixé di ko envoyé man damay dem ba tiis sax naa ko booy. naa mbaa doy mujj yàq son doy na <laughs> doy na mais def na ci travail bu nice. parce que après son bi mu génnee jot na si ba mix bi bi ma ne waaw. Mm-hmm. Biza business moo fi di ko di di char <laughs> sori di char élément biir business. moom la gars yi naan naan sànq sam sam benn journaliste bi ma ñëw ma ne ko waa euh, ki ñëw ak ak su kër mu ne ma kan la Ibadou bi <laughs> ma ne ko non du Ibadou de saa du Ibadou de xanaa <laughs> déglu. Ibadou bi rek nii rek. nekk ko Ibadou la ci kii rek. ba ñu ñëw ci Godzilla. Mm-hmm. Godzilla pourquoi Godzilla quoi Godzilla Godzilla saa yi. Godzilla pour pour semer la terreur. ah parce que boo gis si live bi boo ñëw en fait comme lamb comme dama jël exemple ci lamb quoi. mbër mm. buy da ngay ñëw nga la. bàkku bàkku ne maa fi nekk. Mm-hmm. ragaluma dara amul dara mm-hmm. mm-hmm. am na benn bëgguñu ko déclencher quoi mais am na benn animosité bu nekk suñu ñëpp. mais ku nekk da nga koy denc quoi. suñu la ba nga sës. Mhm. c'est normal nga génne ko quoi te maire bi ma doon gis di que ne. maire bi gis maire boo xoolee ni mu ko bindee ci mut bi yëpp. ci Godzilla rek laa mën a référé ah. wu quoi ci Godzilla rek mën gis boo xoolee bu yuuxoo rek. Mhm. dëkk bi ñëppay daw. Ah. pourquoi pas tuddee ko Abdou Diambar. <laughs> <laughs> Mhm. après Godzilla laa doon gis sama bopp quoi. Godzilla laa doon gis sama bopp parce que mu me nekk quelqu'un boo xam damay en fait dama réservé wu de trop. dama damay denc de trop. bugguma di gaaw a mer bugguma di gaaw a def yenn affaires yi bugguma di gaaw a tontu bugguma di gaaw a dara parce que bugguma sax ku dugg mm-hmm. bugguma sax ku dugg sama zone. mais comme gars yi dugg nañ dugg dugg dugg dugg dugg dugg ba mooy loolu. mais gars yi dañuy dugg sa zone parce que yow yaa déjà t'es devenu une personnalité publique. waaw donc donc bi nga xasee ba doon personnalité mhm. publique moom ah. Mhm. surtout ci game bi. Mhm. non gars yi dañuy dugg sa son bu dugg sa biir caaya. waaw mais bu <laughs> ay Godzilla yoo xam ne yu ndaw. <laughs> ay Godzilla yu ndaw ba ay Godzilla yu ndaw yi ma dégg sama gaale nii nii <laughs> xam nga lépp dëgg la. instant ndaw bi moo génn rek. instant ah, instant nii caat bee génn. caat bi laa génne. est-ce que si kanam naa indi Godzilla. Mm-hmm. mais Godzilla aussi ñu gis ci ci biir son bi. Mm-hmm. benn bind bu xaw a particulier parce que li ñu si gën a seetlu sax mooy dafa bëri ay name dropping bien vrai am na ay assonance am na ay mm-hmm. affaire yi mm-hmm. am na ay paaka am na ay mais xam nga mm-hmm. mais euh, name dropping dafa doon loo xam ne carrément man dama xaw a ci bindin bi quoi et pourquoi pourquoi choix bu bindin mën na ñëw ci bindinu Godzilla d'abord genre man déjà rek même damay dem ay saaf rek dafa dama def ay name dropping nii nii naturellement nii rek. genre damay def ay name dropping. Mhm. dafa nekk loo xam ne déjà bind boo xam ne si man la yàgg nekk quoi parce mhm. sa particularité quoi. Mhm. ma ne man déjà damay def name dropping mais en même temps je fais du <laughs> dropping bi lan laay def ban mbóot laay trouver. pour essayer di combiner ñaar yooyu noonu. ba ba def benn mix. waaw mais ba def benn mix après boo xoolee samay référence toujours fii la yem ci Galsen lay doon. cinquième underground lay doon. Mm-hmm. parce que j'aime bien Djily Barka Aada Cannibal. Mm-hmm. j'aime bien Aada Cannibal. ok dégg nañu ci essayer comprendre waaw ay Buxu. essayer comprendre Popesa. ko waaw te yooyu noonu. parce mm-hmm. que nga xam ne kii nii c'est un gars boo xam ne en fait. fii la xam quoi fii la xam samay référence waaw merci mettre en valeur fii boo demee ba ci fin maanaam day xew yi comme Amène Office Amène Office c'est un gars boo xam ne yàgg na fay di fay it kenn mosu koo dégg moom gars yi dañu ko dégg di coow di coow di coow merci pour gars yi xamul Amenophis moo fooyee na xumaan baalu bandi la après ak yeneen ak yeneen waaw merci mm-hmm. léegi du mm-hmm. mm-hmm. fi dara def normal boo def ci ay son yoo xam ne tu prends des références yoo xam ne fii la nekk tey ku dégg Amenophis ko mos a xam ne ah, kii genre kan mooy Ameno Fils. tu vas faire des recherches tapé Ameno Fils ah kii moo fi defoon lii lii lii lii. dafa mel ne benn mbalax maan ñëw ne la da nga xew comme Abou Cubalo. waaw merci. c'est benn benn la. si question du classe sax. du classe mais mais Abou Cubalo xam nga. genre hommage la ci moom waaw merci hommage la quoi hommage la quoi man j'aime bien name dropping j'aime bien name dropping sama bind yu bëri. Mhm. name dropping la quoi parce que pour man artiste bu nekk da nga am sa identité surtout surtout booy bind. ñoo xam ne kat kii nii lay bindee quoi buñ buñ maam yow boo rabee rek. moom soxla ñuy déglu keneen da nga xam ne kii dafa war a a identifier wu soit bu doonul ci flow waaw merci doon ci ni muy rabee technique am wala ci bindam quoi moom soo mu nekk si image wala ci image am waaw mhm. moom sama bind même boo seetloo sax Euh, ba ci Akatsuki Drill Garden et tout. Mm-hmm. toujours ay name drop. non identité bi dañ koy sentir depuis le début. waaw depuis le début. Mm-hmm. moo ba léegi. boo déglu sama sama identité ci name dropping name dropping name dropping am yeneen mu sa benn son boo xam name dropping lay tudd. non da ngay laaj tamit. loolu la ma wax quoi mooy est-ce que benn son boo xam name dropping quoi nga def name dropping yu bëri ma ko may ah, peut-être ko def bu si bu ci sama xel nekkee rek. jooju parce que feeling laay demee quoi. xam naa ne bala nga balaa ngaa dem foog nga may ñu benn name dropping ci senegal set. <laughs> incha allah yeah but euh, dèjà Khalil am benn film bu comprendre ko si. Mm-hmm. PAM daa mel passage muy déglu ci biir son bi. Mm-hmm. Euh, man passage su ma koy déglu dama naan euh, Khalil kii Khalil kii lay waxal sama waa ji sax borom ñetteelu bët. waaye man maa ngi réer de. <laughs> <laughs> maa ngi màgget de. <laughs> man ñaari bët la am de. Ah, euh, que maa ngi dégg ngay wax mm. di wax ay waxi waga te c'est pas première fois su ma mm. ci drill Galsen aussi. Mm-hmm. xañoon nga ay baar waa def music je sais pas lu c'est quoi problème parce que baar mm, loolu moom dama ko ci seetlu. dama leen juddoo king pii tey pii king dugaat seen biir foogaat ne ko féeki yi. waaw moom man king Pikine laa juddoo. Ah, non man loolu nag xaw ma ko woon quoi. Pikine laa juddoo Pikine laa juddoo cinéma aw Pikine laa foowe naa fa quoi. Mhm. Icotaf moo tax genre damay delluwaat sama. ci ma mhm. juddoo king pii tey mhm. tey pii king bii. damay duggaat seen biir foogaat ne ko feeg yi. code pénal bi laay si viol ngay gis saw seen kaw ngeen gis doo leen kaaw bi cheese. waaw yaa ngi leen di quoi en ni may interpellé kese la wala baar kese kese baar rek Grand Yoff ak baaru Pastef non mais bokk xam nga baaru Grand Yoff ak baaru baaru Almadies bokkul bokkul waaw waaw mais baar rek bind la rek koo parce que boo delloo en fait di xam ne su ma nee door leen donc kaw box kaw dafa leer parce que ñëwaat seen biir en plus. waa ah. waaw pi comme ni nga ko waxee. judo kin pi jóge kin pi dem pi yeeg xaw ma ci tëgg quoi. ñëwaat seen biir. waaw ah. xaañ leen ay kaw. Ah, waaw mais loolu loolu pour man. non non jarul àggali sax loolu leer <laughs> xam nga <laughs> déjà c'est quoi relation ak euh, le reste des rappeurs à part Akatsuki. nice sama leen oh. xaar ma yàlla amul ku lay. ku la ci ku la ci non non aw ma si aw ma si waaw pour l' instant boobu aw ma si aw ma mhm. si kenn problème. Mhm. ma si kenn problème mais bon ñi ma si miinanteel aussi. Mhm. néew na bëriwul parce que li ma la wax rek man sama gars yi rek parce que aw ma aw ma fréquentation. rappeur wala aw ma fréquentation comme ça yeneen rappeur et tout affaire sama gars yi rek laay frek. sama gars yi waa Akatsuki ñoom Badou Mam Xa Black Chéri moom fa laa yem quoi. Badou Dawaay ñoom Mam Xa mais teew na tey. koo xam ne tey génne la génnelul nice ma mhm. kiife ko damay téléchargé man mhm. déglu damay xamante ni musique la quoi ni may mhm. neexee noonu lay neexee noonu lay neexee keneen ak keneen ak ak ak problème euh, quoi parce que li tax ma posé question boobu mooy des fois dañu gis yenn gars yi di gën dafay collab mais Khalil gisaguñ ko trop trop trop ci collaboration featuring yenn affaires yi en fait man feeling laa demee. Mhm. tey su ma filee ne mii kat fil naa ko ci son. Mhm. dama dem lijjanti numéro Malick maa dem lijjanti ko. Mhm. woo ko. ne ko allo Malick nangam nangam naa ñu def benn affaire. loo si xalaat parce que tamit genre ma def featuring ak Malick ma def featuring ak man day gën a doxal rab bi. day gën a day public bi day tax gars yi xam ne kat genre amuñ ay blème quoi. waaw ah. rab yooyu mën nañ mën nañ clashante et tout affaire yooyu noonu mais. genre ci rab lay yem quoi. te loolu sax euh, dama ko bëggoon suñu sax parce que daa mel affaire boo xam ne ko seetlu mhm. ne ñoom dañ ko tane. Mhm. ñi leen jiitu. Mhm. parce jiitu ñoom déjà dañu am problème mu def def ay collaboration seen biir te man te man pour man loolu game bi moo si ñàkk quoi te new generation bi carrément. dañu seetlu que ne gars yi. ñu ngi collab seen biir quoi. Ah, te collab boobu noonu mooy permettre gars yi di am ay produits yu baax. di nga génnee à l'extérieur di nga ah. mën a jaay. suñu a ah, ñu collaborer suñu biir. il ñu mhm. collaborer parce que booy doog a démarrer ñëpp dañuy doog a démarrer noonu lay wax toujours. Mhm. démarrer su ma filee Malick ma xam ne Malick artiste bu talentueux la échange comment def na. Mhm. def ko ci benn son allo

son bi nice am na ñoo xam ne lii mooy lii mooy neex lii mooy neex kese àdduna moo demee noonu sax même boo génnee affaire dina am ñoo xam ne lii moo si neex diw lii moo si neex son mm-hmm. noonu la demee yeah right feeling la quoi mais dañuy duñ génn Godzilla dañuy des ci Godzilla parce que mm-hmm. euh, dañ gis benn réalisation bu rafet benn vidéo mm-hmm. boo xam ne bëgg nañ ci bëgg nañ comprendre tam xam kan moo ne ci ginnaaw aussi kan moo ne ci ginnaaw réalisation parce que vidéo bi nice na trop plan yi tamit ak séquence yi comment ça a été choisi parce que dañ gis que ne ay séquence la yoo xam ne. Mm. dañ xaw a spécifique quoi. ay environnement yu différent carrément. parce que biñ biñ biñ bindee son ba pare dañu foo ñu am koo xam ne en fet mm-hmm. moo ñu koy mën a réaliser quoi mm-hmm. après ñu toog ñu xalaat gars yi nañ woo Chadi gis nañ ko ci côté vidéo qualité lay job et mm-hmm. tout affaire yooyu noonu ñu contacté ko mm-hmm. waaw parce que réalisation bi aussi métti woon na parce que du benn jour parce que parce que nekkul deux <laughs> nekkul trois nekkul trois la trois dimanche presque trois dimanche comme je ne sais pas dimanche lañ def lundi. après defaat defaat yaakaar naa beneen semaine quoi mën nañ presque c'est un mois. waaw presque loolu après ñu après genre ñu woo ko. parce que gars yi dañu jékki saa gis baal ma dañu gis benn vidéo trois minutes foog ne xam nga affaire yi c'est vite fait. nii xam nga dañ ko dañ ko dóor fekk xam nga c'est des c'est des c'est des semaines de travail. non non non waaye dafa dafa liggéey si vidéo bi dafa liggéey si vidéo bi carrément te moom aussi xam nga son bi neexoo mu kii fekkee tout comme moom ni muy def rek xam nga mm. job moom boo ko bëggee rek après après jusque jeex na quoi. dafa bëgg lu muy job ñu présenté affaire yi mu présenté du script. Mhm. ñu lii laa gis lii lii lii parce que ñun bu ñuy def son dañuy dañuy son ba jox réalisateur bi. Ah, ñu présenté script bu dee script bi doon nañu ñu validé. ak mhm. bisimilah kañ dem ñu lii script bi gars yi lii ko ne ah script kañ avance ak moom ñu bàyyi ko aussi ak réalisation bi mhm. mu jël temps et proposer li ñu war a sol ba ci habillement et proposer li ñu war a sol et lii laa bëgg ngeen def nii laa bëgg ngeen def nii laa nii ak nii nii ok mhm. ñu ba di xaar mu livrer ñu aussi ama waaw gars après ngeen satisfaire waaw gars yi ne sa xaalis war nga ma war xaañ dara bi benn oye mu la ba man ci ci vidéo bi sax daa benn image boo xam ne dama image boobu man su ma man image boobu moom ma gën a neex ci vidéo bi mooy nga taxawee ci benn fond bu xaw am ay carrière la xaw ma affaire bu weex. sol affaire bu rouge yi. Ah, ok moom ma taxawee boobu moom dafa nice. <laughs> boobu ñu ngi si beneen planète gars yi dañu may laaj fan la quoi mais nee naa gars yi beneen planète la. wala boobu yéen a ngi ci alien yi. waaw ci alien la yow comprendre nga nag yow man ma ñu ngi si beneen planète. yéen a ngi ci alien yi. noonu so euh, yow. Euh, daam daam des fois ñu may wax ñu naan ma. damay dégg Khalil dèjà yaa ngi wax que ne da nga am dèjà Pikine nga jóge. dund pied. Mm-hmm. mais foo jaar ñu Diourbel. <laughs> waaw Diourbel sama temps ah, parce que gis ñu bëri xam nga ñu dëkk Diourbel. à chaque fois dañ naan ma saa Khalil Khalil Khalil xam di di profité di char sama néeg <laughs> Amadou di char Oji euh, <laughs> xam olib gars yi di leen ah, fa parce que fa laa defee sama enfance yëpp parce que hmm. Dakar lañ nekkoon après ñu affecté sama papa foofu noonu hmm. nekk fa depuis depuis may nekk xale ah fa xamee sa mun naa fa xamee la mooy rap parce que ñu doon fréquenté yëpp parce que samay grand fa lañ nekkoon di rap et tout hmm. bii comme ñi ngay wax ay Amido ay Olib et tout y avait d'autres gars yi Boga et tout ñoo ñoo foondoon ci ci ci loolu lañ jaroo quoi ci tànku express ay tànku incense mooy xam ne yàgg na si si loolu lañ jaroo boobu ñuy nekk tout petit mm-hmm. ñu nekk conseil ba six heures du ñibbi si bi tegal lu métti comme daaw du mm, changé mais mm-hmm. def na def na def na dara si man quoi parce que yaakaar naa def naa fa def fa dix ans xaw ma neuf ans. foo def dix waaw parce que yaakaar naa may may am kat def quatrième xaw ma cinquième. Mm-hmm. laa fa jugee quoi kon c'est-à-dire bu may nekk xale ba léegi. foofu laa nekkoon. laa jugee am naa fa ay ba léegi sax ba mu concert amee dañ may woo bàyyi nga bàyyi nga joué sa temps la et affaire yooyu mooy incha allah dañuy ñëw. Mm-hmm. mais bi mu génnee sax ñu a ngi dem même mm-hmm. même su may reposé mm-hmm. NPA. su ma demee tamit même bu demee foofu noonu damay dem gis sama gars yi xalil seen xalil la xalilu Jurbel ah, oh. la xalilu <laughs> Parcelles la. xalilu Kirpi la waaw Pikine chaque jour chaque jour lu tax doo tudd la. waaw loolu la <laughs> gars yi xalil xalilu àdduna mhm. àdduna la en dama am chance boo xam ne en fait. waaw parce que loolu chance la. gars yi dañu ma bëgg. en mhm. fait li may wax de ay caaxaan quoi. Mhm. je yi di questionner genre xaw ma lan la peut-être loolu suñu borom moo ko def nii quoi gars yi dañu ma bëgg. Pikine et ku nekk day ñaan yàlla tey genre sama gars yi loolu may wax. tuxu nga ñëw ku nekk day ñaan yàlla xale yi Messi xale yi Messi xale yi féete foofu quoi xale yi nekk xale yi mais je dis parce que am loo xam ne dem na ko si man ba pare mm-hmm. même su ma koy reposé mais teew ne saayat yooyu yëpp sama saayat la saayat la fu tey dem foo mm-hmm. fa am ay nit mm-hmm. buñu demee am ay nit day am am yi ñoom si yow damay toujours artiste du questionné son yi nice na nga génn xam nga sa conditionné nga bañ a jël gars yi jaay yi star et tout affaire yooyu noonu loolu yëpp déjà mhm. di nga am benn part boo xam ne nga réservé si yow mais am na part boo xam ne foog ngay bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo la bëgg sama téléphone lu ba ma wooyee parce que dama goma dama lay jël mhm. décroché may waxtaan ak yow et tout nga wax ne say yéene nga wax ma li nga bëgg si man nga wax ma tout damay jàpp si bagage yi tout ma la waaw parce que dañoo ubbil porte yi ñëpp ubbil porte yi ñëpp boo boo ma wooyee damay damay déglu leen daal laay bañ mm-hmm. mooy ku manque de respect parce que loolu dama ko non sama life loolu laa gën a bañ ku ma tuutal kan mooy fekk Godzilla naan ko naan da koy manque de respect tey si life am ñoo xam ne en fait <laughs> parce que dañ des fois da nga koy jot quoi. daal ñu bëgg xaru. dara day am sa dara kenn woo la dagal la et tout xam la lay wax. Eh. ay xaru rek. barki yàlla. <laughs> xam naa li ma xam quoi non genre dama naan rek. Eh. mais da nga xam ne loolu si si si laaj la bokk. Mm-hmm. mais teew na ñi lay woo ñi nga xam ne ñu la bëggee tout foog nga leen déglu loolu nekk sa mm-hmm. mooy jox sama bopp la. Mm-hmm. conseil may jox ñeneen la. parce que nit ne la dama laa bëgg. doo foor quoi yàlla tijji xolu. Euh, xolu xale def si Malick nii nii. Mhm. waaw loolu kenn xamul lan la quoi parce que loolu kenn mënu ko fay. ndax nit ki kooku moo ñëw say concert. kooku moo lay woo téléphone kooku boo génnee CD même bu kenn jëndul dem jënd kooku benn partage bu muy def nii da dem partage. Mhm. wax ay mbokkam yëpp pour ñu dem pour ñu dem. laaj pour ñu dem waaw mais si da leen fàttali ne dem déglu te kooku fayoo ko dara. Mhm. pour man kooku noonu lu mu munti def si yow bu la woowee. jëlal boo mënee mm-hmm. déplacé wu nga dem fa. nga toog nga waxtaan moom et tout yooyu noonu. parce que su ma jumul euh, euh, kan la woon sax euh, Triple X Tentation la. mu mm-hmm. ko defoon si benn publication quoi fan si dañ koy woo. Ah, la mu leen jël appel vidéo di toog di jël temps am di waxtaan ak ñoom et parce que loolu mooy sa fan base. waaw loolu mooy loolu en fait loolu mooy sa famille après quoi. à part sa gars yi loolu mooy sa force loolu mooy tax foo woote da jaral gars yi. Mm-hmm. dañuy déplacé dañuy ñëw da jaral gars yi dañuy rayante dañuy ñëw parce que su ma demul concert Malick Malick day échec ma am ko si kii am ko si keneen am ko si ay milliers de personnes ñoo xam ne dañuy réfléchir noonu mm-hmm. mais boo tëggee day fees mais bu dee yow dañ la bëgg di la woo faale woo leen. gars leen tamit dañuy cere seen. self mooy mooy proposal li muy wax naan loof loofa koy fay. yow kese loof loofa koy fay. moom ça doit être réciproque. non nit lañ kenn moomu leen. Mm-hmm. so euh, ñi ñi ci biir loolu fan yëpp passé ñi gisoon dëkk bi xawoon tàng tuuti. Mm-hmm. gisoon euh, di ñëwaat ci Akatsuki ngeen génne woon benn son agression. Mm-hmm. bëggoon nañ ci wax mais amuñ amuñu woon occasion. pour wax ci suma jumul ñi ngi door am occasion. su fekkee mën nañ ñëwaat ci ci lool parce que. période boobu noonu dafa doon période boo xam ne ay agression mi ngi am ci town bi mhm. te te pour man le rôle du rappeur tamit mhm. des fois mooy askan su fekkee soxla na tamit koo xam ne mhm. da koy gindi wala di ko teg ci axe rappeur te boobu loolu ngeen def euh, te pour man c'est c'est euh, c'est quelque chose de très important dëgg la xaalis parce que xaalis business neex na quoi muy ñëw xaalis mais tamit nit ki tamit nga koy teewal dafa am solo te instant boobu loolu ngeen def quoi ah mais pour man loolu mooy yoon sax parce boo nekkee ñu de voix nit xel Mhm. c' est normal am na sa dëkk fu muy toll c' mhm. normal nga am aussi comme ça noo taxawee pour wax gars yi kat ah suma sañoon ngeen def lii parce que moomoo kenn tamit mais mhm. juste sa kàddu nga am sa kàddu boobu yaakaar nga si kat boo waxee kat au moins nit ñi dinañ dégg te ñun ay jeunes lañ ci ban lañ leen dëkk ci ban lañ juddoo te li ñuy jiin ñu bëri ci banlieue ñu ngi koy jiiñee te banlieue mel noonu sax c'est mm-hmm. encore la plupart li may gars rek ay gars yi biir biir comme ça biir banlieue bi la mais banlieue ñu civilisé ñoo fa nekk ay nit ñu ñoo xam dañuy teel a xëy dem mm-hmm. kii boo gisee ay yoo xam ne dañuy ñëw def loolu c'est normal kat nga arrêté ah, arrêté mm-hmm. doy na quoi parce que ñi ngi koy def nii ay néew di doole gis néew di doole buy wàññi néew di doole temps bi fan la jëm boobaa ñëpp dañuy siisu moo tax après nga doon gis gars yi ko si jàpp dañ lay rey et tout parce que nga dem ba nit ñi dañuy siisu quoi parce que mënu ñoo xëy ci ñàkk di xëy di uti mhm. di ñëkk yow nga bëgg dañuy xam dañu koj dañu dogaale loolu moo nekk te jotoon ci dafa jotoon si mois boobu naka ñu mhm. toog ñu ne ah gaa yi mhm. lii kat am na quoi te c'est normal aussi ñu génn ñun wax di wax si quoi parce que donte ay ndaw lañ mais ay ndaw yu am vision lañ ay ndaw yu am yoo xam dañoo bëgg ay ndaw yu ay ndaw bëgg lañ aussi quoi te aussi c'est ay yu ay ndaw di déglu ndaw yu ay ndaw di déglu te bu la ndaw di déglu nga war a def yëfu ndaw tamit quoi nga def yëfu mat yu def yëfu mag nekkat mm-hmm. gaa yi ni ngay war a taxawee ni ngay war a doxee ni ngay war def ni ngay war a def et mm-hmm. te fallait ñu def ko sax c'est pas la première fois période jamono jamono jamonoy mars tamit génnewoon tamit personne yi gën a tardé ngeen génnoon tamit wax quoi te pour man loolu dafa am solo ci mm-hmm. hip hop quoi dëgg la des fois gars yi mën nañ business des fois mën nañ mën nañ sax xam nga des fois da ngay gis sax rappeur boo xam ne day dem def benn affaire am ci xaalis bu bëri ñëw jëlaat ay ay affaire ah, dimbali ko waa kii mais pour man dimbali bi ëpp solo mooy gars yi nekk ci problème ngay wax ak ñoom ah, muy tar ngay wax ak ah, ñoom man loolu moo ëpp solo quoi léegi ñi ñëw ñëw ci benn actualité parce que instant temps bi temps bi gis na sama waa ji may may door kot ci suuf noonu euh, temps yi dañu bëgg benn polémique si game bi ñu bëggoon xam juste lan mooy si sa avis ñi naan ay ay ay mbalax rab rap mbala mbala rap taasu taasu rap mbala <laughs> xam nga sax nu ma koy waxee noonu <laughs> tellement que j'ai pas ah, li may toujours tant que gars yi ñu ngi def tant que gars yi ñu ngi def rap. Mhm. ñu ne parce que artiste ma tënk ne ñëw si Malick ne ko par force jàpp si loxo Malick ne lii ngay def. Mhm, par moom Malick te moom Malick. te dama ko jox mu lekk dama ko jox mu ko jox mu naan. Mhm. ku nekk li ngay def bu dee yaa ngi ci gis sa bopp rek. sant yàlla. waaw bu kenn amul en fait amul forcing quoi man bon la loo mooy loo mooy sama point de vue quoi du ma diw. Mm-hmm. def leen rab mbala def leen rab lii man li ma fii laay def. Mm-hmm. li ma fii def ku nañ bàyyi ku nekk. Mm-hmm. def li ngam quoi. parce nekkuñ si nekkuñ ci benn dictature tamit. waaw ah. gars yi soxlawuñ sama xalaat sax mais <laughs> pour man rappeur. wala artiste sax laa wax rappeur c'est un artiste. donc artiste waroo ko teg ay limites di ko bloqué. waaw naan ko non yoon bi waroo fa jaar. soo jaaree yoon bi nii mm. da ngay jël yoon bi jaar na non da ngay bàyyi moom mu dox fi mu bëgg a doxee ah, libre free ah, euh, léegi euh, gis nañ tamit fan yi ay inondation mm-hmm. affaire yooyu noonu su fekkee am na loo ci wax aussi waaw di masawu rek di masawu mm-hmm. ñi nga xam ne ama seen gaal yi dafa inondé mm-hmm. di masawu ñi xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw di leen masawu di leen baax di wax aussi ñi nga xam ne aussi am nañ possibilité dimbali leen dañ dem dimbali leen ma buñ xaar ne

ba nekkee si benn affaire nga dem ba yàlla comme ça ba yàlla wësëgal la si. Mhm. moom day baax des fois nga nga gëstu ginnaaw. ñi nga xam ne waaw merci surtout ñi xam ne ñoo jox doole boobu noonu. parce que rapport boo gis tey saa itam moo ko jox doole boobu noonu. day baax tey boo amee dara saa bi am na problème nga dellu def ko ci saa bi. loolu wàññiwul la dara yàlla day tax affaire day gën a saawan baawan. noonu la euh, pour tënk yow euh, si sa gis-gis qu'est-ce qui bloque le rap qu'est-ce qui bloque le pour internationaliser wu bi ñuy wax depuis depuis ma juddoo ba léegi gars yi. nan mm-hmm. a toog waxtaan rek ko bloqué pour bu gars yi waxtaan déggoo si ñuy def ñu war a liggéey ci ci benn côté bi liggéey si benn côté bi ñu war a liggéey si leneen liggéey si leneen. Mm-hmm. ñu teg ñu teg ko si yoon quoi ñëpp liggéey. Mm-hmm. dañuy dem vite parce que li ñuy def kenn daafuñu ko. mën nañ lépp maanaam dara bloqué wu ñu ah. moom ñàkk a waxtaan kese la. ak ak ñàkk a waxtaan waaw mais ak aussi genre. tey kaana yi dañuy gis ñaar dañuy am bif sax. Mhm. mais ci ci pourtant ñu ñu ëpp problème dañuy am bif sax mais teewu ne maa day organiser concert ma jékki-jékki. débarqué ci ci concert ci concert Malick. Mhm. public bi kontaan maanaam après ñu def album. Mhm. def ay vente ay meilleurs records ay meilleurs nangam mais Sénégal. di problème bi. waaw mais tamit. <laughs> <laughs> fii moom xam nga day xaw day xaw a day xaw a métti xam nga mooy loolu fii moom des fois dem nga invité kenn sax ne ko non mu ne non du ma wax si diw. waaw du ma wax si eh, tas léegi pour euh, comme que temps mi ñuy xooj. Mm-hmm. dernière question avant ñuy tëj ak ak ah, li ñu fi tax a ñëw. Godzilla soo balaa ñu tëjee yow lan ngay wax la la concurrence. waaw ah, mais concurrence dafa baax si àdduna. Hmm, mais ñoom loo leen di wax quoi la concurrence su ko fa am. waaw ñu gën a liggéey <laughs> wax loolu leen liggéey leen. wala da ñu déglu Godzilla. <laughs> non non déglu nañ ko ba pare Godzilla amul kenn ko déglu. waaw kon boog ñu dem gëstuwaat Godzilla boobu. waaw ah, incha allah dem dem dem dem suluwaat yeneen mbooti nekkaat ci biir. Godzilla ñu gars yi dégluwaat. Hmm, so uh, su fekkee am na aussi uh, lenn loo xam ne gis nga ne c'est important te jaaruñ ci aussi benn message booy jàllale affaire yooyu noonu. waaw pour man naa yàlla parce que wax nañ lépp. à mm-hmm. rek di wax gars yi xam nga ñu gën a jàppale surtout nouvelle génération bi. Mm-hmm. surtout loolu. gën a mm-hmm. jàppale parce que talent am na fi quoi. na gars yi na gars yi na gars yi xëcc gars yi. may leen loxo ñu yëg yéeg quoi. Malick bu nekkee si kaw. xam ne kat wala xale bu nekkee si kaw xam ne Malick li muy def nice na. ma xëcc malik dafa moom benn featuring wala dafa day gën a élargi day tax Malick ñeneen ñeneen sponsor yi day ñëw si Malick ñeneen ñeneen Malick def ko ak keneen. Khalil def ko ak keneen. xam mhm. nga Bàcci def ko ak keneen Samba def ko ak keneen. day tax game bi day gën a dox. bu mhm. fekkee nañ ibbil gars yi porte bi su ma la demandé featuring boo xamee ne booy am na talent. def leen ko day tax après affaire yi day gën a élargi rek. day gën a naaj produit nañ ko yaatal buñ ko buñ ko bloqué. bàyyi siisu bi waaw mais nañ ko yaatal. ak bàyyi ragal bi <laughs> ak faj yi. ak faj yeeg defar yeeg diw faj na loolu moo ñu sonal quoi billaahi médicament yi ñu sonal ay diw doon na la sonal waaw billaahi loolu kese moo ñu sonal. ba looy wax euh, pour tëj euh, looy wax sori taala waa ak Element. waaw Element moom fu mu dajee damay xool man Napa rek xaw ma demee noonu. Napa waaw sama gars yi rek di sama gars yi di aussi sama sama gars yi sama ménageur yi. Mhm. Sori ak aussi Bress. Mhm. di bëgg aussi sama waa Saaj parcelle 1 ba mhm. di bëgg aussi gars yi xam ne chaque fois su ma jugee li may jox seen affaire may sol mooy waa wërsëg. may sol nii parce que fu ma def fu ma dem moom laay sol et tout. ah wërsëg bi war na saa. non wërsëg bi day ah, ñëw day day saa <laughs> di bëggee aussi. Euh, uh-huh. parcelle 1 ba 26. di bëggee uh-huh. aussi képp koo xam ne da ngay déglu mel wax na hip hop. donc gars yi Godzilla disponible na sur toutes les plateformes. Uh-huh. ak aussi sur YouTube quoi la gars yi dem. waaw waaw gars yi déglu ko. waaw nag gars yi ñuy déglu Godzilla lañ sol ay casque moto ay gilet par balle ay genre xeetu business yooyu noonu ay combinaison ay combinaison so sans plus ta euh, nan koy waxee sans plus avec la complicité de Mr Yass Yass sama naar bi xam nga dañu ñëw tëj ak Godzilla Godzilla Yeah, ladies and gentlemen, Godzilla live on Senegal. Godzilla. my nigga Khalil. Bra. Ah, Godzilla. Ah. ah. yow pare pour guerre pare pour dee la lépp day leer bu woote fi coow te sa gàdda ku di day ne bi léegi da nga ñëw la ni ko geew la da nga manqué réseau man ci satte nit bi woo dafay jafe pour nga jot ma jóbal niggas finger dama mës a gañe wax ko bitch nigga fan la is time to work yow la niggas doog bi may foog sa gaay wax ko nigga fan nga toog da nga yàgg bëgg bokk fii doo fi toog Mike naan kenn bi ama baax doo fi yor sama flow dafa diis boo koy laaj di gaaju sa waa ji may clap dafay xaru ne daa sa flow nekk fël comme fii ak gazo ñoom ñëpp lay muur sama doom waadu bitch wax ma loo fi def duñ ko defati ma solo ci son yow ak sa gaay duñ ko defati bàyyi ma kenn te ñi ma gis te ñu mujjati ba jaay sa reer wax ma ko jaay ba doo bidanti ubbi sa xel talal sa life mooy lu bëri jobalu bëy na sama talent benn bénéfice aw ma lu may ragal fu ma jaar def fa génocide maa ngi di gang dama clash ba am jënd si. hey maay Godzilla. bitch nigga maay Godzilla Godzilla Godzilla maay Godzilla. hey bitch nigga maay Godzilla. maay Godzilla bitch nigga maay Godzilla. maay Godzilla bitch nigga maay Godzilla Godzilla Godzilla Godzilla. Ah. Bitch nigga my Godzilla Godzilla My Godzilla ah Bitch nigga my Godzilla My Godzilla Bitch my Godzilla My Godzilla Bitch nigga ay taakale jënd ñu ne attaque ni Casemiro seen booy xamul dara ni ñuy rabe Casemiro bokk ñu réseau du ma ni ska man la ino amokat ba tax sa décollage dañ ko ngiro su la nga di peel su sa gaay pare sal ko si ñi la foog imbécile yi ñooy sa kaari seen taati laay dee pare sol ko si encaissé yi brique sans ma bidoog seen pii tey pii seen biir damay dugaat seen biir fogaat li nga féeg yii comme danaan bi laay sii viol waay ngay gis sax te kaw ngeen gis doo leen kaaw bi ci foog son bi day pese ba la gisoon lii kii yi dugg sa gel ni nga gis koon lii amoon nañ pisi bëgg a pese naan waga ngeen fii normal di ut ay daal di joué may si pose dafi seen rap nekk day dafa jàll ni complet ba may classe di nga xool ma lay collègue si compte le temps est super carré dama wooy si ton père ma lagg di la bomb ñu lay gisuñ fi ton père pos pos gàddu lay duggee indi lu fanatique faj fuuy dana leen jàmm ne leen fii fan la fii si di beneen faat fi na defi lu fantastique takk taal di waga yi indi tuxla ak kaana bi maa ngi sa kaw nigga nafee amuloo fiit waxoon naa la di nga xewi yow la amee na fii sa carrière yëpp da nga ko nangu comme ay testicule bu jume tey dugg si ñu yaa ngi si bërëb pour ne la del santalaa du benn beel gën la undu gën la dee def sa koog teg sa beek dugg la ni calam day rey sa temps du ni si feet pour ne jug jàmm jeex di sëñ ci sa bési dee maay Godzilla bitch nigga maay Godzilla Godzilla Godzilla maay Godzilla ey eh. bitch nigga maay Godzilla Hey, my Godzilla, bitch nigga, my Godzilla. Hey, my Godzilla, bitch nigga, my Godzilla, Godzilla, Godzilla, my Godzilla. Bitch nigga, my Godzilla, Sénégal, Sénégal, set, my Godzilla, hey. Bitch nigga, my Godzilla, Sénégal, Sénégal, set, my Godzilla. Bitch nigga, my Godzilla, Sénégal, Sénégal, set, my Godzilla. Bitch nigga, my Godzilla. Hey, Godzilla teew Sénégal, Sénégal set wecc. <laughs> Godzilla. Godzilla. Godzilla. Godzilla. Godzilla. Hey. Sénégal. Sénégal, Sénégal, set. Ah, hey. Sénégal, ah, Sénégal, Sénégal, set. Hey, hey. Sénégal, ah, Sénégal, Sénégal, set. What, what, what? Sénégal. Godzilla teew ni ko Sénégal, set. Hey, yo. Xalil la woon Akatsuki SN Godzilla ngeen doon am biir Senewrap set. skrë baaw.